Eh, eh, sakartuhu salafan qabla an yulqil xitaaba xam xam naa la muy la ciy juddoo ci waxtaan ba santoon naa ko njëkk muy muy muy muy muy jàng discours bi eh, loolu ak xama koy war ak xama koy waral ndax suñu la dara wax na nit moom boo ko xasee xam moo ko faati jow mokk la yam buñ la ci bëggee doolik sàdda da xam ne bokk ci woon bu la ci bëggee wàññee wàññi sàdd da nga xam ne sàdd gii kat yaa ko wàññi waaye ci la boo <laughs> ko mokkale ba ba classé ko noonu nga koy def <laughs> kon nag maa ngi leen di nuyu di ñëpp ci bis bii nga xam ne dañ fee ñëw ngeen fee ñëw ñu fiy def waxtaan wi waxtaan wi jëm ci sëriñ bi loolu di bànneex ci man bu baax a baax a baax a baax ndax fu ñuy waxtaanee sëriñ bi rek ak yokkute la ndax dana la diir bi ñu koy waxtaane ak diir bi nga koy déglu dana la yóbbu ci yàlla lool amul leneen loo mën a def ci boore murit lu la mën a yóbbu foofa ci ci lu la mën a yóbbu fa la lii di yóbbu ndax dana la delloo ci yàlla dana tax nga nga nga bàyyi gën bàyyi xel yàlla dana taxit nga gën a yéem sëñ bi te moom it noonu la jëmmam meloon mag mosuma dégg sëñ bi mu neen am na mag mag moo xam ne da doon wax ak Boona Njaay ñoom ñaar ñëpp ñu wax loolu mhm. ne ah sëñ bi murid yi ñu ngi koy ñu ngi koy tuddee turi wu xam naa li ma xam daal mooy ku gis sëñ bi saxal dem ci yàlla lu mu doon nag laa xamut ku ko gis ku ko gis ku ko gis saxal dem ci yàlla <laughs> loolu nag kon taq na taq na ca taq na ci yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla la doon xëy ci la doon gont ci la doon jànq ci la moom la jox dundam bépp tax na nag ko ko ko mas a gis rek saxel dem ci yàlla ba tey nag bu ñuy waxtaan moom bu ñuy waxtaan ci moom it noonu la lay def noonu la kon li mag ñi daa wax nañ ci gën a ngooy rek am na mag ñoo xam ne ci mag ba fi mag ñi ne dañ daa wax naan ku bëgg garab gu sedd gu dëll goo xam ne doo fa jóge di wuti ndox doo fa jóge di wuti ñam ronal sëñ bi rek <laughs> boo fa riigoor yi lépp dana la fekk te doo doo eh, eh, aw naaj du la jàpp eh, te te te doo mar doo xiif kon nag mag ñi yeet yeete woon nañ mag ña waxoon loola wax nañ dëgg waaw wax nañ dëgg kon yàlla na ci yàlla gën a dimbale jaari ndeer ñoo ñu far toog ci ndeer yi rek mañu mañu faa jóg kon nag yàlla na ci yàlla sëñ Tuubaa gën a dimbali rek bu nag ngeen xam ne eh, li am li ko eh, Cheikh Mamadou Fadil waxee woon rek nit de du am lu ko jàmm loolu la suñu Fàllu waxoon waaye nag waaye ndax ndax bu ko jomboon da ko dul am mm-hmm. waaye dana am lu mu nee na kii ñoom buñ jommoon duñ ko am waaye nag xamuñ ko am nañ lu ñu xamut muy sëñ bi noonu la ko sëñ Fall waxee kon nag yàlla nañ ko gën a xam yàlla nañ ko gën a topp yàlla nañ ko gën a déggal bu ko dee nag ngeen xam ne bi weer wi ñu ne weer la moom fonkoon weer la woo xam ne bu ko itteeloon la weer la woo xam ne bi mu laataa dem ci géej gi ñëpp xam na ni ko fonke woon bi mu ci géej gi ci la def xasida yi xam ne sax ci koy teeroo ko ak di ko ci mi ngi fam ne gisul sax kuy woor waaye ci la de ci la ci la def xasidaam yooyu di da ciy teeru weer wi ak di ko mu ko lool mu defal ko ab diwaan sax boo xam ne lépp du ko tënki weeru koor dadaa waxit fu mu toll naan sahru ramadan sirri rabiul awal liya weeru koor mooy sama mbóot gàmm moom moom moom moom damaa ñeel man donc oh. sama yëfi bopp waaw maa ko sama yëfi bopp dal maanaam daal maanaam non nit lu fonk dëgg non non ñaari yooyu la sëñ bi gën a fonk ci lépp muy koor muy gàmm kon nag bu jotee ñu defee ko fii ci Touba war nañoo sant yàlla. Mhm. fase ko ci kanamam war nañoo sant yàlla. Mhm. jeexari kaamil bi ci kanamam war nañoo sant yàlla. Mhm. julli fi genn julli képp ci weeru koor ci ci dëkkam bii rek ngëneel la ndax ni ko sëñ Abdou Khadir daa wax rek lu sakkan la ñuy wut te nee na ginnaaw sëñ Mourou Sa ne ko jaame nettali na ko sëñ bi nee na sama turandoo nettali na ko sëñ sëñ bi nee na def lu baax baaxee na fu ne waaye sakkan na Tuubaa te neen lu sakkan nag la ñuy wut ñun moo tax moom fonkoon daw nangoo woore benn bis bu dee koor ngàtt gi sax du ko nangoo woore bu ne ko fekkoon baax daal dana ñëw Tuubaa kon noonu la ko fonke woon ci ci doon ko dundale Tuubaa kon nag bu ñu yàlla tawféexale tawféex ji war nañoo sant yàlla ndax mboolem lu am njariñ yàlla wan na ko sëñ bi mboolem lu nu amal njariñ mm-hmm. yàlla wan na ko sëñ bi <laughs> te nag bi mu ko ko wanee it dimbale nañu ba ba ba wanee na ko nuñ ca mën a jariñoo wàcc wan nañ wàcce wàcce na ko ba mu tolloog suñu dégg mu wanee na ko noo xam ne buñ ci jaaree mën caa jariñoo waaw waaw loolu kon nag wàcce naa kon li war a def mooy gën a góorgóorlu gën a yokk suñu taalibi yokk suñu itte ngeen xam ne weeru koor wii lu ñor sëñ bi la loo xam ne euh, dadaa def bu agsee mboolem mag ñi nga xam ne xamoon nga leen ñu ay kàngam ci yoon wi ñëpp dañuy fas si koor ca ci moom njëriñ ñëpp ñëpp mm-hmm. ñëpp dañ daa ñëw njëriñ te ku ne berndeb sëñ bi dana agsi ci ak yëgam dana agsi ci moo tax ak yëgam jikkoom rek mën naa yor adduna waaw boo gisee ñëpp topp ko bokkam yëpp topp ko taalibi yëpp topp ko jikko jikko yàlla defal la yem liwut ak kenn waaw ne ni ko suñu daan daaxee ku ne ku ne ku ne jikkoom la la yore koo mën a doon rek boo ñëwee jikkoy boppam la lay yore moo tax mu mën a ànd ak ñëpp <laughs> ne danaa la wan ci boppam wan la sa diggante sa diggante ak moom lu tax bëggoo di sa morom <laughs> loolu nag euh, jikko ju rafet jim mu ak fi ko yàlla yóbbu ci makaarimul axlaax loolu moo ko may loolu moo ko may lépp mën a dajee ci loxoom kajoor ak bawal ak jolof fonk ñëpp ñëpp dajee ci loxoom loola ko may bu ko dee nag ngeen xam ne eh, da yàlla dañu koo dimbalee li lii tax ñu mën cee jariñu nag mooy na mag ña doon def rek ñu def ko ci moom muy sopp ak wóolu ak topp waaw <laughs> yooyu rek buñ ci saxee lépp luñ bëgg luñ bëgg jariñu ci moom danañ ko ci jariñu te loo xam ne si ku sax ci jaayukaay bi ni mu ko daa waxe ku sax ci jaayukaay bi te eh, te te xooxle xooxle ci ne faw ngaam am xooxle mooy lëjle xooxle ci ne faw ngaam am nee na danañ mujj fekk la ca teretang bi dana mujj ne la andi li nga am ma jaay la wala yàlla jox la njëg gi <laughs> loolu suñ fekku jàngale woon ci <laughs> waaw taxoox la ci njëg gi boobu mag mi da ko wax ne ko da da damay damay tarantang wër wër boppam la koy wax ba naa li nga xam ne bu ko amee am naa lépp bu ko ñàkkee uma dara muy muy muy mbiram mi te nag xaw nu may def ba am ko ndax uma njëg gi sëñ ne ko waxaatal li nga waxoon mu waxaat mu ne ko xooxleel ci sàkku gi rek <laughs> boo ci xooxlee mm-hmm. danañ mujj borom jaaykat bi dana leen indi andi indi andi li nga am ma faral ko jaay mm-hmm. wala yàlla jox la njëg gi <laughs> ah, yaar yow kon nag loolu ab bind la wax ñun ñëpp nañ cee jariñ ah, nañ ci yàlla dimbale bu ko dee nag ngeen xam ne moom lépp lu baax moo ñu wan nañ ko wan a jariñoo lu ne ba njàngum alxuraan rek moo ñu wan niñ ko war a jànge ndax dañoo wan nañu loolu sëñ Abdoulaye laa ko toxale nee na sëñ nee na wa wane laa yamas boo jubee alxuraan di jàng alxuraan dalaan la laa yamassuhu illal mutahharuun nga daal dem jàppi ñëw ne laa yamassuhu illal mutahharuun ah, war a am cangaayul cangaay te defuma nga dem sangu jowaat delsi jub ko mu ne laa yamassuhu illal mutahharuun nga daal nga daal ne kon kon xam naa ne sama xol a laabul nga dem tuubi ndax taxaaratul xal bi moo am wa taxaaratul jismi te taxaaratul xal bi tuuba koy maye ba nga dellusi nga dem tuubal yàlla nee na bi nga dellusi waatee nag alxuraan daal di ubbil boppam. Oh. seen ku jaarut foofu nee na nee na boo jàngee alxuraan yi mbët mi du ñëw. wa bi nga dellusi waatee nag nee na mu ne la faqra oo maa tayassara minhu nee na bu waa loo jàng rek mbët mi ñëw. Eh, nee na eh, kon nag yàlla nu yàlla dimbale loolu doy na bind jël leen loolu tey dégg nga ah, loolu doy na bind ah, suñ tubaa ko kon nag yàlla nu yàlla dimbale bu ko dee ngeen xam ne rek nañ gën a góorgóorlu gën a ngoy ci sëñ bi gën a ngay ci suñ diine gën xam ne lii ñu am ak kii ñu am lépp jawful faraa boobu muy wax mu nga xam ne lépp moom da ko daa naan ci ci mooy rab bi nga xam ne bi ko daanee ci laa am lépp te muñ muñ rek la ko nee ci laa ko ak tabe ak lewet ci laa ko daaneele ba mu ko daaneele kon lépp lépp lépp mi ngi ci loxoom léegi waaye ñu nit sopp ak topp ak ak sopp ak topp nu ma ko waxee woon ak wóolu ñett yooyu nga ci mën a jaar ñetti nga mën a jaar ba ba ba ba mën a jariñu ci jëflu fara boobu nga xam ne am na <laughs> kon nag yàlla na ci yàlla dimbale bu ko dee nag ngeen xam ne koorit xëdd sëñ Tuubaa daana ko ci digale nañ ko fonk bu baax te saxaroo fay na fi suhoori barakatan tax mi xam ne ma doxoori maanaam ngeen di fonk koor bu baax bu accès na ngeen di xëdd ndax xëdd xëdd mooy dàq iblis moo tax ñun bi ñu nekk kër Serigne Abdou Khadre sëñ dañu daa aaye dañu daa aaye bañ a xëdd <laughs> ni mu fànke woon sunna waaw bu xëddee dañu fëgg sax dañuy fëgg jox ñu ndax ndax bañ ñu bañ ñàkk xëdd noonu la fonke woon xëdd bu ko dee yéen ngeen xam ne koor it koy def ku ne war ngaa xam ne euh, euh, war xam ne euh, boo ci duggee bi nga kooree ak bi nga kóor wuri dëgg la. Hmm. war ngaa uh, teel koo fànnoo mu yéene ji te bëccëg bépp lu koy dog waroo ko waroo ko def muy siyaamu naa la ko faridataani jooju sëñ bi wax bila siyaadatin wala nuqsaani sunna yi war nga ko fokk fonk bu baax a baax a baax di teel a dog di yeex xëdd ak fekk sa làmmiñ yi ba doo ci wax wax ñaaw ci bëccëg bépp ñetti yooyu boo ko defee sunna ñetti sunna yi koor matal nga ko bu ko defee nag yaraw na afdala futoorin fil xubur bala ngaa dem ki ki woor te defe ko ni ko ware bu duggee ci bàmmeelam nga xam ne wa min waraihim barzaxun ilaa yawmi yub'asuun diggante boobu ngay nekk sa bàmmeel te bis ci taxaw gutit daañ leen fa indil ndogu yoo xam ne ñi daa woor rek ñoo koy mën a am kon yàlla na ko yàlla dimbali kon koor lu mat a fonk la lu mat a wormaal la ci bëccëg bi lu mat a fonk la ci di ko dundal ci guddi gi lu mat a def lu baax la eh, maanaam di ci def ngir yàlla infaq loo ci defee rek loo xam ne nit jariñoo na ko ba woore ko rek am eh, dana la amal njariñ tey ak ëllëg moo xam da nga ciy jox nit suukar moo xam da nga ciy jox nit lu mu mën a doon rek loo xam ne nit woor na mu ne mu dog mu doge ko kooku tiyaabu jur réerée ndax ko dogal ku woor gis nga li ci yonent bi wa man fattara saayiman gis nga li ko yonent bi tudd bari na lool kon yàlla nu yàlla dimbale ba noonu ko sëñ bi digle ba def ci ab xasida goo xam ne nee na mboolem ñi nga xam ne dañuy woorit bu ëllëgee duñ mar te it am na bunt boo xam ne rayaan la tudd ñaar rek a fay tàbbi mooy kuy woor ak kuy bigal gone ndax bu dee ci addis bi dane fenn te te sëñ Tuubaa sax ko wax man ma dégg ko ci mag ñi laa yadxulu fii illaa mufarrixu sibyaan muy benn bi benn bi nag mooy eh, mooy bi mu wax mooy addis bi ma xam ne ci la waxee ne kenn du ci bi kurut kuy woor kon yenent bi dana wax ñaar ñaar yëpp rayaan waaw rayaan moom ab bunt la boo xam ne kuy bigal gone boo sëñ bi nee na sëñ bi doon joxe dara sëñ Ibra Faati ko ah ta bàyyil ma ma bëgg koo jël ci loxoom man koo séddale mhm. fekk sëñ bi di ko joxe gone sëñ bi ne ko inna fil jannati baaban yuqaalu rayyaan laa yadxulu fihi illaa mufarrixu sibyaan oh. <laughs> loolu sëñ bi laa ko toxalee bu yàgg <laughs> kon nag kon yàlla nu yàlla dimbali ngeen ngeen ngeen jàppe ko noonu mhm. gën koo fonk gën koo dundal tayit boo agsee ci fukki fan yu mujj nag moo ci ëpp doole waaw ndax ci la doole ji gën a ñëw ndax yonent bi masaa ñëw da yee waa këram takkaat ndiggam di ko gën a dundal di dundal guddi gi di dundal bëccëg moo tax mu ixtikaaf di mu daa def sax moo tax mu mu dadaa ànd ak waa këram ñëpp soxnaam yëpp ñu maanaam maase dugg ci jàkka ji tëj seen bopp ba fukki fan yi bañ ne tey di weeru feeñ na ñu soog a génn ngir bëgg rek mën a jéemaat ci yàlla gën a mën a dakkit laylatul xadar euh, guddi gu jot rek nga nga nga jàpp ne tey jii mën naa cee daje nga moom xaayisatu laaj yonent bi ne ko bu maanaam bu ma xamoon ne tey la ñaan gu ma war a wax mu ne ko allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla di ab jéggalaa kon nga bu bëgg njéggal jéggal ma ñaan googu mooy gi nga ne boo jortee ne tey fukki fan yu mujj yëpp rek nga ko faral di wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bu ko dee nag naafile yi eh, taxaw guddi lu mat fonk la ci ci weeru koor ndax moom yàlla da ko bëgg rek ndax bu ko gis nga ni ko sëñ bi wax ci masaalik sax xorimtu an axawma fi layaali xamsat asrin ala tawaali gis nga kooku nga xam ne sax amoon na juróomi weer yum yoo xam ne mënatut a naafila te li ko tegoon mooy gis nit rek muy jaamu yàlla mu ne mu wax ci xelam ni kii daal bu day njistal yàlla nattoo ko ca moom nitu yàlla kooku nga xam ne nee na nee na fonk na lool naafila guddi waaye ma gis ki ki kuy jaamu yàlla rek ma wax ci saam xel waxuma ko kenn sax ne kii daal damaa ko day njistal wax googee rek yàlla nattoo ma ci maam juróom weer mënatuma naafila sëñ ñu nag nee na loolu la koy mooy haasa li anna sarra eh, mën mu waxati li anna sarra eh, mokkal naa ko bu baax loolu nee na nee na li ko waral mooy wu aw ay day eh, ayu tuuti day woote jëm ci ayu mag xalilun kullin minhuma yadhoo ila kathirihi falaa takun muqallila nee na lu tuuti lu baax dalay woo jëmele ci lu baax moo tax bul bul xeeb lu baax mm-hmm. waaye lu tuuti lu bon dalay woo jëme la ci lu yaatu ci lu bon moo tax bul xeeb lu bon ba def ko <laughs> xalilu kullin minhuma yetoo ila kasirihi fala takun muqallila kon nag yàlla na yàlla dimbale te ñu gën a farlu bu baax a baax a baax gën a xamit ne suufus Tuubaa ak boqatul mubaarakat bee ci njaarim di lépp luñ man sëñ bi nee na bu weeru kooree ci lañ koy gën a mën ci la seen doole di gën a bari waaw suufu tubaas yi ak suuf njaarim jee mu dëkkoon waaw loolu ku wax kee ko wax te maa ko nangoo sëñ <laughs> kon nag kon nag yàlla nu yàlla bool dimbale loolu doy na leen foofu tey waaw maa ngi ñi fasaale ñi toog ci jataay bi di fasaale ñi ñuy déglu ñëpp ñi ne ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ak mboolem jullit ñëpp nag di ñaanal jullit ñëpp di ñaanal taalibi yëpp di ñaanal fu nitu lislaam ne di la ndokkeel ci weer wi nga xam ne ñoo ko bokk te moo ñu boole ñun jullit ñëpp ñuy dogandoo di woorandoo ci wenn weer mu tegtale ne ñun jullit ñi aw wenn xeet lañ woo xam ne am nañ benn yonent bu ñu boole te benn yonent boobu war nañ cee sant yàlla ndax bi bi yàlla fabee ki gën ci mbindeef yi def ko mu mu jiite suñ xeet wi boobee lañ gën ci xeet yi ñu nit na noonu ko bu sëri waxe lama naha llaahu daahina li taahatihi bi akrami rusli fa saasa ñu nit kon naa akramal umami <laughs> bi yàlla wooyee ki nga xam ne moo moo ñu woo jëm ci topp yàlla mu yónente bi ne ko yow yaa gën a tedd ci ñi ma yónni boobee ñun ñiit fa saasa lañ nekk di xeet wi gën a tedd ci tedd ci xeet yi moo tax yàlla tagg tagg jullit ñi leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu tax taamuroona bil mahrufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billahi kon nag wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaam mooy lool li muy firi mooy yéen a gën ci xeet yi te alxuraan ko wax waaye nag li leen ko li leen ko may nag loolu ponk boobu ñu ne yàlla nañ ci góorgóorlu ba waxtu wane ñu ñu ko sàmm mooy nañuy digal nit ñi lu baax maanaam li fi ko yàlla tënk feeg juguñu fi rek fii juguñ fa rek gën a tedd ci xeet woo day yokk mooy mooy di dégle lu baax di tere lu bon fokk ñii kilifay diine yi waxtu ne war nañoo dëkk ci di ko def taamuruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari ndax kat yahuud di kat bari na lu leen dar loo xam ne alxuraan nee na kaanoo laa yatanaaxawna an munkarin fa'aluu labiisa maa kaanoo yaf'aluun <laughs> li leen dal kat li dañ daawut tere ab safaan buñ ko gisee moo tax li leen dal baaxut mooy la bi <laughs> kon nag kullu aamin wa bi xeyrin yàlla nu yàlla defal atum jàmm neex yoo xam ne buñ jógee ci koor gi danañ bokk ci ñi nga xam ne koor gi jëriñ na leen ndax mooy xolub at mi koor bi bu yéenee rek lépp yéen yonent bi dafa tabe woon waaye bu koor masaa ñëw mooy gën a tawe ngelaw ngelaw loolu la addis yi mooy gën a ngelaw luñ boyal ci yonent bi ci bu koor masaa jot ci lay gën a ci weer yëpp sëriñ bi bu masaa koor masaa jot maam Aminata Bousso dafa nettali ne bu koor jubee loo loo loo ko wax mu ne xanaa sama gan gi nga koy nga koy waajale loo ko wax mu mu di kàddu yi bu nga tàmbalee ci kàddu gu njëkk gi sëñ Fallou li wax ne sëñ Abdou Lahad nit moom boo ko xasee xam moo fàttee joo mokkal ñooyam buñ ca yokkee aw sadda nga xam ko buñ ko ca wàññee it nga xam ne wàññi nañ ko ci kon loolu xam-xam la bu leer nañ eh, beneen bi ci toppitam itam eh, ñëwaat na ci eh, ci njàngaleem Serigne Touba li mu wax ne sëñ Abdou Khadir moo wax ne jaamu yàlla baaxee na fépp waaye Touba la gën a sakkane te nee na ñun lu sakkan la ñuy wut. xanaa kuy jaayit tono wu ngay bëgg wala lu gën a sakkan bénéfice bu sakkan moom ngay wut muy taxawaay yu am solo ñu lay seereel yitte ak pas-pasu sëñ Talla Gueye Eh, waxtaan wi bokk na ci ñi nga xam ne ci ñi koy njëkk a soññee ci weer wi lay bokk. Ah, waaw ba muy nekk soow di ko topp ba ni mu koy fekke si fii. Ah. Eh, ñii ñu àndalit di sëñ Xaadim Seck eh, sëñ Mortala Fall sëñ Alaaji si la ak sëriñ Cheikh Gueye at mu ñoo ñoom ñoo koy ànd ñëw di ko taxawee. xam naa sëñ Fàllu mi dina ci doy seede ndax ba ñuy nekk Italie bokk na ci màggal yi nga xamante ne su amee muy màggal sëñ Abdou Khader ak màggal sëñ masamba sëñ Cheikhoum sëñ du Faty Khary daan ko def ak yow si màggal sëñ Abdou Khader bokk na ci màggal yi nga xam ne nit ñi buñ ñëwee di déglu kenn du leen wax déglu leen bu ñëwee màggal si kenn du soññi kenn ci déglul ñëpp dañuy ñëw fas yéene déglu waaw ndax la muy wax day nekk luy am njariñ ak sëñ sëñ sëñ euh, Isaaxa moom sëñ Basiiru moom tamit xam naa sëñ sëñ sëñ Fàllu dina ci doy seede ndax fekk ne ko ba tàyyi léegi nag dafa am loo xam ne dama ko déggoon ci ay jamono euh, te kon ñun dañuy liggéey ci média ñu soxla de mu yeesaat muy jamono boo xam ne da doon wax ci wàllum tarjumaan ji nekk ci Matlabul Fawzayni eh, ci di ci wax ta diggante waxtaan ak Sëñ Saaliwu eh, li nga xamante ne njariñ la ca ba koy wax booba eh, pétrole kenn tuddagu ko Sénégal nga wax ci wax joo xamante ne ñu bañ ko déggee fekk na ci suñu pas-pas ñu gëm ne lu raw jamaak yooyu yëpp am na fi ndax ni ko sëñ bi doon sëñ bi doon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la am ca Màkka ak Medina nga ñëw leeralaat ko ñu teg ci ay ay at yu néew rek ñu daal di wax fépp ci si Sénégal am na gaz am na pétrole waaye nag li ñu am dafa ëpp loolu muy sëriñ bi ñu bëggoon boo ñu mën a yeesalaatal loolu rek ci ñaari kàddu yu gàtt ca sa digganteeg sëñ bi ci tarjumaan waaw góor sëñ Xaadim ndax euh, fi moom walis yu bari dañ ko tëj waaw waaye léeg-léeg nga fexe ba ñu ubbi wenn walis rek dana ciy baax Ah, damay faral di wax toujours ne ba mu koy ñor néew ma ñorutoon nit ñi waaye seen yitte jëmagu ci woon te mag ñi nekkoon ak sëriñ bi moom ala kulli xaalin eh, moom dañ doon dem ku dellutoon lan yor nag buñ demee dañ koy ñàkk waaye alhamdulilah rabil alamin ba nga xam ne fardu kifaaya la ko jàppe woon ci wuutu ñëpp ba taataan la woon ci mag ñi. kon ñu ñëwaat rek ci noonu mu waxoon ci tarjumaani Matlabul ni waxtaan woo ci doon def ak sëriñ Saliou noonu la ko waxee. waaw loolu kay moom moom mooy na ngi ngi mi ngi ci bànd yi xanaa loolu ma ci waxoon rek wa way way loolu mu wax ci loolu si Ibrahima sidna Ibrahima ñaan ñaan ko fii ñaan ko ca Makka ba mu doxaat ay junni at ak nangam ña ba jege ñaari junni at ak nangam ëpp na ko sax mu soog a nangu nag pétrole beeg yëpp feeñ fa mooy bi waay din xëy si seen hindi baytikal muharram rabbana li yuqimu salaat faj'al af'idatan min naas tahwi ilayhim warzuqhum mina samaraat la'allahum yashkurun mooy ñaan yooyu mu fa doon ñaan moom it sëñ bi bi muy def mbaarum mbaarum ngeer mi fii mbaarum ngeer la fi njëkk def foofa la toog def Matlabul Fawzayni ci dimb googu ñuy wax di jóge ci mbaarum ngeer mi ci di di ñëw foofu <laughs> fi la taalife Matlabul ñaan fi nag loolu ci la nag boobee nag la sëñ bi xam ne wér na ko ne boobu nag la ma nettali ne ma li nga gis ci réew moom yi yëpp muy pétrole ba ak gaz ba ak xéwal dana ñëw fi ndax sëñ bi ñaan na ko waaw moo waxoon loolu ma ne leewoon ko nag boo xam nga ñun xamaguñ ne pétrole sax jege jegeegun eh, ci senegal nii te nag am na sax leen lu mu ci daal di la wax ne boo eh, waxaale ma ko ma ne am na lu ma ci seetluwaat wa kassiran xayraati haasal baladi wa risqahu ba noppi nag wal takfihi hannakadi bi mu ñaanee wërsëgoo nañu la yëpp ñëw ba noppi nag daan ñaan ne te bu mu ànd ko tiis loolu la ñu bari seetluñ ko. macha allah. kon kon suñu xel war naa dal. loolu sax Mbacke ma la. bisimilah kon ndax wal tag fii xam na yi. fu bari moo ko yàq. wallahi bu amut bu amut waaw. ah daal day war. kon kon kon eh, ñu ñu tàllal ñëpp. ñëpp waaw ñu tàllal nangu ñaan. te ñaanal ko moom it yàlla gën a guddal fanam. te wéeral ay cëram. te nangul ko ab liggéeyam. amiin ci barkeb Sëriñ Tuubaa. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin